incroyable quand un préfet donne l'ordre à des forces de l'ordre de même sur la presse, il y a problème. Des caméramans euh, ont été blessés, des confrères ont été blessés. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que ça cesse, que les gens ne se trompent pas de cible, que les gens ne se trompent pas d'adversaires. Les journalistes font leur travail et nous sommes des pères de famille, nous sommes issus de la société et dans l'exercice de notre fonction, nous ne permettons à personne de nous attaquer, que ce soit des attaques verbales, que ce soit des attaques physiques, euh, on, déplore cela. Maintenant, l'autre chose que nous devons déplorer, c'est que le linge doit se qu'on la couverture sur nous. Les patrons de presse, on doit également leur dire la vérité. Beaucoup de patrons de presse bafouent les droits des journalistes. Ils ne donnent pas des salaires décents. Ils recrutent comme ils veulent et te donnent des conditions incroyables qui ne respectent pas la convention collective du journalisme. Il y en a qui licencient abusivement et rien n'est dit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a également une exploitation de ce qu'on appelle les stagiaires dans les rédactions. On leur donne le gros du travail, même pas un centime pour le transport. c'est de l'exploitation. Il faut qu'au niveau des patrons de presse, que les gens commencent également à donner beaucoup plus de respect aux journalistes. Parce que si les patrons de presse ne respectent pas les journalistes, waaw li ñuy wax rek mooy di lu bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel tas xibaar ci àdduna euh, bés bu mel ni bu amee dañu war def xayma xayma bi nag moo di ni Sénégal euh, li ñuy wax liberté de la presse am na fi ndax ku xool li fi nekk ci ay organe de presse xam ne euh, ci wàllu pluralité maanaam ci wàllu waroo ku nekk am nga organe de presse. presse en ligne bi également mi ngi bari ba bëgg a dee loolu day wane ni rek ci wàllu taxawal këru euh, tas xibaar loolu amuñu ci problème jafe-jafe bi ñu am mooy ci wàllu liggéey bi parce que tey dañuy seetlu ne ñu bari moo xam ngeen pare ci nguur wala nga nekk ci opposition bi wala nga bokk ci population bi des fois dañuy te duñu ko teg fenn koo ci wax lu ko arrangé mu ne da ko contre teg la lu mel ni xame wala ñu teg la firnde fitna boobu parce que bërki Dembo Ndiaye la ñu dem soleil lakk ko fan lañ ko du yoon bërki Dembo Ndiaye la ñu lakk TFM lakk ay auto journaliste yu nga xam seen ñàkk la ñu ko jënde est-ce que loolu yoon la ma du yoon bërki Dembo Ndiaye ci manifestation yi la ñu dégg mu ne chargé même la presse ñu jël ay grenade dóor ko journaliste yi damm caméraman est que loolu dëgg la ñu ne déedéet du dëgg parce ñun ay njaboot la ñu yor dañuy di jëriñu di liggéey suñu liggéey ci biir taxaw du ñu nangu ku ñu faagaagal te loolu war nañ ko saafara beneen bi ci des mooy ñun suñu bopp war nañu xool suñu bopp suñu patron de presse ñu nekkee du dëgg du yoon te loolu il faut ñun wax ko dañuy exploiter journaliste ñu ci bari di leen fay salaire baax du ñu am contrat baax léegi-léegi ñu dàq la te duñ ko teg fenn te dara du leen ci fekk stagiaires yi nga xam ne dañ leen di jël ci rédaction yi di leen liggéey ñoo comme ay mbaam te duñ leen jox sax bu ñu duñu respecté barki Demba Ndiaye Bougane Gueye daal dàq juróomi caméraman kenn ki dem yalwaan ñu jël ko ñeneen ñi tey ñi ngi nii di taxawaalu waxu ko dara te moo bi may liggéey bi may nekkoon ak ñoom falaa leen ñu dàq leen loolu teguwul ci yoon yeneen yi nga xam ne il y a des licenciements non justifiés et je pense qu'aujourd'hui il est temps que les patrons de presse nous respectent pour boo xam asalaamaaleykum suñu mbokk internet dal leen jàmm si seen information beneen coow kat jum nañu jëmale ko kii nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany di PDG groupe des médias coow li kat du lenn lu dul ginnaaw bi nga xamee ni dàq nañ fa ñeenti caméraman dafa am ay nit yuy jum ni lépp mi ngi jugee ci loxol ki nga xam ni mooy Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nag mi ngi préciser ci page :fra facebook :en am ni ñeent ñi nga xam ne mooy caméraman :fra ñett ñi kat jot nañ notification temps :fra yii si ginnaaw bu leen di wax ne ñoom kat documents :fra yi leen relier :fra woon ak ki nga xam ne mooy groupe :fra des :fra médias mi ngi ci fin :fra contrat quatrième caméraman bi moom aussi nee nañ prestataire la woon fee nga xam ne mooy bureau ya nekk fee ca Parcelles Assainies moom tamit jot na notification bu koy wan ni kat contrat am jeex na ba defoon na sax décharge mieux nee na ñeenti caméraman yooyu yëpp jot nañ ay virement d'indemnité fan yi si ginnaaw loolu kat moo tax mu ñëw def poste bii di xamle ne kat waa groupe des médias direction mi ngi wax ni ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany taqewul laalewul ci dàq bi nga xam ne ñi ngi ko dàq ñeenti caméraman bi ndax jaay kat daa am nu muy doxee ku nekk ak sa wareef la fa war a def moom ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany mi ngi wax nii képp koo xam ne yaa ngi continuer di joxe fausse information concernant ci affaire bi fa ngeen ne kat mooy ca kanamu justice fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaar li leen jox dig daje ba ëllëg incha allah